ak it nii xale yi def événement am ci biir politique bi xale yi ci occasion wu di def naka su dul noonu est-ce que seeni leader ñoo leen ko sant hmm? est-ce que seeni leader ñoo leen wax ni taalal yi fi jàmbur sàccal yi fi jàmbur dëgg la xale yi koy def sax dañoo minoritaire am na organisation boo xamante ni bi bu amee te képp kuy responsable te am capacité def dara ñu encourager ko appuyer ko bu ñu ko defoon rek fi ñu toll lii xew lépp lépp lépp ñoo ko teg suñu bopp ndax danoo fekk yoon wi ne nii fu ne nu fay jaar bañ jaar ci yoon wi muy waa pouvoir di waa opposition li ngay wax danga leen koy séddale waaw ndax ku dul yàlla yàlla rek moo dul juum politique beeg njiitu réew mi ak ñi mu ko seqal responsabilité responsabilité la rek waaye dañoo tolloowul responsabilité yi ñoo tolloowul fi ñu toll responsabilité sëriñ Muntaxa tolloowut ak benn waaw ndax li muy almuridiyaa tax